diw la wala diw takk na si wala diw takk si wala tamit dañoo juumoon ci autopsie bu ñu doon def kon dee naturel la mm-hmm. kon ñoom daal ñoo ko poussé mu am mm-hmm. position bi mu am léegi nag moom bàyyi nañ ko mu dellu këram mm-hmm. loolu la ñuy ñaan ñu bàyyi képp ki nga xam ne ni état bi téye na la si plainte boo xam ne da ngay ñëw rek ñu def la mandat dépôt nañu wàññi mandat dépôt yi te bàyyi nit ñi ñu dem seen kër du leen procureur soxlaa ñu ñëw wuy si ko du leen juge soxlaa ñu ñëw wuy si ko je suis partout dans le monde je mm-hmm. suis partout dans le monde mm-hmm. mais je jël nit mm-hmm. jël la convoqué la préparé woon ni yow dañ lay mandat dépôt nga sol sa dal sa chemise dem wuy police nga ñew police loolu sax dafa un si ak ak yelef doomu mm. police entendre la ba paré 48 heures ñun ñëpp xam nañ ni procureur c'est le maître xam wala de l'enquête mais tamit duñ la ba enquête la même duñ la mandat ñun la waré def mandat dépôt. Mhm. nan la bay ñu la may neen la deux jours. nga ñëw ñu def la mandat dépôt. 2 mhm. jours yoy nga dem nga régler sa kër régler sa famille dénkaane li ngay dénkaane après nga dem wuyu yi ñu def la mandat dépôt même duñ lay après déféré ñu may la 15 jours nga préparer sa famille topato len parce que man.

téye ma. 48 heures entendre ma. Mhm. bayma ma dem sama kër. ñu joxaat ma rendez-vous une semaine ma préparé wu dem wuy ji procureur ma ñëw mhm. procureur wax ak man fa la mujjé mhm. bal ma ma dem. jaaluma sax ay ay ay jugement mais sama yenen morom yum ko séqaloon am na ñoo xam bi leen procureur waxé dama lañu déféré da ngay dem da ngay dem wuyu justice. da ngay dem ñu àtte dañ leen may 15 jours ñu delluwaat wat sen bi biñ démé ils ont préparé leur famille. fay leen dimbali leen après mm-hmm. bi ñu demee justice ñu yóbbaale seen part en danse ak yëpp yi nga xam ne ni dañoo war a dem tëddi yow mm-hmm. dañoo war a dem tëddi seen peine mm-hmm. mais convocation mandat dépôt déféré nañ la mais li nga ay nit yi nga bàyyi sa ginnaaw nag ak ak yelleefu doomu aadama war nañ ko xoolaat moom la jomaay doon kaas ba ñu faloo rek di woote seen seen seen seen tànnabeer boobu si affaire justice laa xam ne du dem comment t'as dit tànn. tay tànn biir la ñu woote si justice bi. nan la ñuy ah wooye ay anciens détenus ak ay nit ak naan leen woy man oui wala non dinaa génn conseil supérieur de la magistrature du ma ne oui du ne non après ñoom ñu jël ko woy jomaay waxul waaw waxul déet te ñun waaw déet lañ fi daan bañ kilifa sa kàddu warul nekk waaw wala déet parce que da ngay bañ ñii mere la wala buggoo ñi kontaan kon da ngay tranché duy metti bu metti ci Sénégal yëpp dige bor la. Mm-hmm. bés bo pouvoir bi da conseil supérieur de la magistrature. Mhm. Ousmane tonko il ko wax pendant 10 ans 10 ans Ousmane Sonko yaa ko doon wax dañuy le conseil supérieur de la magistrature. mais mhm. génn leen ci mhm. génn leen ci ngeen may justice bu faire tuuti. ndax sénégalais a am afia ñu bañ problème justice. ay ndaw ngeen yéen a war a révolutionner justice bi kon ñoo loxo sax pas historique si justice suñu doom yi dañ naan lii président Ousmane Sonko ak Diomaye ñoo ko fi bayyi woon. Mhm. comme ni ko Abdoulaye défé mhm. comme ni ko Macky Sall defee il faut manquer yow marquer vos empreintes ci nga xamné ni day doon lo xamné da fay historique. Mhm. ta fofu lan lañu ñu en tout cas euh, j'espère que ñom dinañ def euh, li parce que gis nañ ñëpp gis nañ né fin résumé Macky Sall bon. c'était un peu chaotique euh, catastrophique euh, pour, pour mais, euh, dire ci côté li nga xam ne ni moo di jàpp tëj yóbbu loolu aussi daal di nañ koy remarqué mais surtout remarqué nañ ko aussi ci li nga xam ne ni moo di ndoxteelu tey ñoom ñi nga xam ne ñoo di joomaay mais bëgg naa la interpeller ci benn affaire da nga ne ñoom ñoo ñu génne seeni loxo mais tey ki nga xam ne moom Mamadou Moustapha Ba Fatom Adama Gueye daal ci aadu ndax mënees nañoo ne tey ñoom Ousmane Sonko ñoo nekk si ginnaaw li la di arrestation wam aussi mais fii Sénégal. Hmm. comme ñoom rek na nga ko daan waxee. fii kuñ fi jàpp Jomaay moo la jàpp ak Ousmane Sonko. Hmm. fii justice bi ku mu fi jàpp. tant que ñoom génne wuñu seen loxo conseil supérieur de la magistrature fii kuñ fi jàpp Jomaay moo la jàpp. Hmm. wala Ousmane Sonko. amul procureur amul juge kuñ fi tëj kuñ fi tëj Jomaay moo la tëj wala Ousmane Sonko gis nga la kaak euh, bi Macky sàll Macky Sall. Euh, jeunesse su Sénégal mm. dañ ko xeex injustement te ñu si bëri ñoo ngi koy rëccu tey ñu wax si kaw ak ñu wax si suuf ñoom seen biir xam nañ ni xeexuñu ko justement dañ ko xeex injustement te loolu mooy loolu moo feeñ ba léegi nii. Mm-hmm. moo feeñ ci langue politique bi mm-hmm. ba léegi. Mm-hmm. exactement ca ñu àddu euh, ci euh, ki nga xam ne nag euh, moo di Cheikh Thiam.